que duñ ci ñëwaat. ah non non je crois pas maam maam Birame euh, li ñu am à l'Assemblée nationale euh, xëy na duñ mën a rappeler historique bi yëpp mais gis nañu quatorzième législature bi ci suñ kanam lañ leen installé li fa jot a xew yëpp lan ngay xaar exactement ci jour boobu pas ci côté euh, li fa Ousmane Sonko war a wax sax ndax xëy na moom moo ko bind su ñëwee dañ ci commenté mais taxawaay ban la député yi war a am selon yow cette quatorzième législature. député yan yii. xam nga euh, ñu bëri dañu yaakaar ne assemblée nationale bi légitimité am moo ngi ko ñàkk te nañ ko installé alors que jiitu na loolu euh, pour man ba conseil constitutionnel jàppee la si di saucissonné fa la illégitimité wu assemblée nationale bi tàmbale puisque quelque part sénégalais yi euh, liste yu ñu dem votel dañu ko voté daanaka muy bennoo nag di yeewi askan wi Benno Bokk Yaakaar également seen liste suppléant yi def naa noonu lañ ko def. amul woon ñu leen ñu yóbbu seen euh, euh, liste titulaire yi. donc mu nekk ay liste incomplète yoo xamante nii quelque part euh, mun nañu wax ne sénégalais yi amuñu woon d'autre choix bu dul voter li nga xamante nii moom la ñu gis ci seen kanam. alors que dans la réalité ñëpp xam nañu ne assemblée nationale boo xamante nii à l'époque Ousmane Sonko ngi fa woon Déthié Fall ngi fa woon comment il s'appelle encore. Thierno Youmba nga fa woon ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen jàppoon nañu ne doon la jox quelque part benn euh, euh, euh, qualité assemblée nationale bi de sorte que yenn débat de bas étage yu ñu fa gis du am mais ce qui s'est passé mooy conseil constitutionnel décision boo xamante ni tegu ko fenn mu jël li si xuppati ko ensuite ce qui s'est passé ci biir élection yi nu mu déroulé gis nañ ko également kenn mënul wax na ay élection yu leer nañ la même si quelque part résultat yi ba mu génnee ñu bëri fàtte nañu les nombreux couacs yi nga xamante ni ñoo amoon ci scrutin loolu yëpp ñu jéggi ko daal di agsi maintenant ci voté nañu euh, euh, euh, ba pare am na ay nouveau député yu ñu fal naka la ñuy def ba metre sur place ab bureau assemblée nationale boo xamante ne nii quelque part liggéey bi sénégalais di xaar ci ñoom dinañ ko def mais foofu tamit mu amaat beneen pëcc xoo boo xamante ne nii la xew nee nañu 1962 la gëj a am Sénégal te boobu ba ñuy wax ne amoon na fi sax yegguñu woon ci euh, maanaam takk der yi dugg ci ba ci biir assemblée nationale di euh, encadrer urne bi nga xamante ne nii ci la ñuy voté. Hmm. mu nekk une première très grave buy porter atteinte à la démocratie du Sénégal ci contexte boobu la ñu ñëwee sànq yaa ngi leen di wax règlement intérieur bi. ñu naan ay négligence la ay njuumte la mais ñii nekk ci illégalité moo leen neex. Mhm. bu leen ci Ousmane Sonko jéemul woon a jële mandat bi mun naa jeex te du ñu jéem a laal règlement intérieur bi la preuve mooy. Mhm. mais cour de ju cour de justice de la euh, haute cour de justice. mais dañ leen a jox ay délais yu leer pour ñu mettre ko en place jusqu'à présent da ngaa dégg fenn fu ñu la waxee ne. cour de euh, haute cour de justice boobu am na. 30 jours je pense après seen installation. mais amul te pourtant loi bi moo ko wax. Ah. léegi ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy def ay loi ñoom nekk ci illégalité moo leen neex te jàpp naa ne assemblée nationale bi je sais pas ce que le premier ministre va faire parce que bu nekkee dafa bëgg a profité ci déclaration boobu pour wone ses grandes orientations pour également euh, euh, wax fi nga xamante ne nii foofu la ñu jëm ak naka la ñu fay demee. mais député yii ma gis. ñu ko may ci ko war a jàkkaarloo di ko wax. mais du député yi man waxuma waxu légitimité de. mais ña fa ne ay nga xamante ne nii ay sànni ay coquette la ñu fa nekkee sànni ay xeer ak leneen ak leneen mais ñu soo fa demee pour def foofu sa déclaration de politique général mm. mais li nga ci bëgg maanaam sénégalais yi déglu ko. ak euh, comment dire mu amal leen njëriñ ñu xam fan la ñu pouvoir bii nar a jëmee. comme moom nu mu koy waxee également ñi nga xamante ni ñooy partenaire Sénégal yi nekk bitim réew Euh, comment dire euh, euh, déglu la déclaration pour xam ndax seen partenariat ak Sénégal dina am lu ciy soppeem déet mais jàpp ma ne assemblée nationale bi dinañu permettre loolu. oui Pape ci côté boobu assemblée nationale. le 31 moom soreetul quoi. oui déjà bu ñu changé règlement intérieur bi ba defar ba pare ba ñu am règlement intérieur bu bees boo xam ne lépp dina tegu ci niñ ko bëggee. Ousmane Sonko war a dem lan ngay xaar exactement ci assemblée nationale euh, pour que mu mën a nekk déclaration boo xam ne bu audible la wala ñu revivre comme bu ma mënee citer benn rek bi fi amoon en 2001 avec Idrissa Seck par exemple. waaw euh, nañ naan yàlla loolu mais déjà euh, faw faw mu faw mu am benn précision bu ndaw bu ma indi mooy que ci wàllu constitution article cinq bi ak ci wàllu règlement intérieur bi buñ ko buñ ko voté ba ba mu jàll. dana am encore beneen problème bu ci posé parce que mooy 3 mois yi nga xam ne mooy règlement intérieur bi daf ko tënkoon il faut ñu régler waat problème boobu xool ndax dañuy créer waat yenn yeneen ñetti weer wala da ngeen koy ci yenn biir waxtaan pour voter loi bi da ngeen ko ciy prévoir à une date précise loolu tamit. je crois honorable pour mu rétroactif. non de dama moom laa président de la commission des lois bu dee mën nga ma tontu foofu quoi. c'est-à-dire bu ñu voté par exemple. delloo si waat le règlement intérieur voté ko et tout ba mu ñoŋ ba mu ba mu léegi da ngay dañ koy tënkaat ci trois mois wala da ngeen di xool yéen seen biir ni ngeen koy régler dans les brefs délais mu ñëw. la commande hein? la, durée, com la commande sur la table du président. waaw li ñu ci waxtaanee nous avons reçu laissé la primeur au au, au député. Mm -hmm. mais comme on a dit c' est aller dans ce cadre le. temporaire et calculée, mhm. qui a intérêt à faire la déclaration de politique générale il faut se poser cette question qui a hâte à le faire d'accord contrairement à certains li leer mooy l'urgence que nous avions mmh. c'était que les manquements qu'il y avait reviennent dans le règlement intérieur et je pense que le travail qui devait être fait l'a été et est sur la table du, du, du président de l'Assemblée nationale kon nag euh, euh, Issa question bi je crois man réponse bi leer na léegi nag ce qui. lu ñuy xaar mais leeragul parce que nee na après. waaw non non c'est-à-dire leer na moom laa wax non non leer cest te dire que moom tey jii. Euh, ñoom député yi biir daal ñoom député yi pour le moment amuñu jëluñu jëluñu si benn responsabilité même buñ ko voté ki nga xam ne mooy premier ministre dañuy jàpp ni que moom moo war a jël responsabilité interprétation mu na ko voilà selon yow voilà ñu interprété waat ko ne léegi Euh, durée ba mu waroon a def def nañ ko ba pare parce que 3 mois yi moom jàll na. romb na 3 mois moom romb na ba pare. waaw àndoo ah ci. non mais y' avait ba demal ba ñëw waaw. non parce que man c' est c' est très important xam nga ndax lan. parce que bu dee dañ ko dara tegaat ci 3 mois mooy que il faut ñu xaar 3 mois encore il faut ñu xaar xaw ma kañ dañ koy voté xaw ma mois prochain wala. Euh, kii il faut ñu xaar fa bu dee nag la nga xam ne dañ ko war a waxtaanee ñoom les différents groupes d'un commun ne ñu ko voté ba mu ne nii dix jours après wala cinq jours après wala quinze jours après premier ministre dana ñëw man moo taxoon ma bëggoon am ci leeral quoi léegi nag ci débat bi en tant que tel. mais moi moi je crois que. nan la ñu mën a def pour vivre pour gis déclaration de politique générale boo xam ne vraiment dina leer ci xolu xelu nit ñi ñu mën ko déglu bu baax a baax. non man bu ma dégloo honorable député Ismaïla Diallo man sama sama xel dafa dal. su ma dégloo moom li mu wax. waaw mooy que sama xel dal na waaw mooy que ce n'est pas euh, l'actuelle majorité à l'Assemblée moo leen tere nelaw la ñu bëgg a def sénégalais li ñu diggante ak sénégalais depuis lors mooy ils vont venir dérouler. ça moom c' est c' est c' est à mon à mon à mon avis dina amaat xëy xam moom ma ne loolu moom lay ragul ndax dina am ay sànnante daal ci Pape. non loolu moom <laughs> non du fa jàpp di wax ah non non non non c'est-à-dire il faut que de l'ordre yooyu de l'ordre ah, non mm-hmm. yaakaaruma ko yaakaaruma ko. c'est-à-dire les enjeux yi au moment de l'installation de la législature ah. Euh, yeneen enjeux yi yaakaaruma que enjeux yooyu tey jii. Euh, ils sont d' ba mu jaral. Euh, ñi fay indi euh, takk dere yaakaaruma muy waa Yewwi muy waa Wallu muy waa Benno ni que image yooyu kenn ci ñoom bëggati ko mais une chose est sûre mooy que le débat niveau bi nga xam ne moom la Mame biram di ragal di craindre c'est ce que pratiquement beaucoup de Sénégalais craignent même si comme Moussa l'a dit tout à l'heure il y a de très bons députés c'est-à-dire des, de très, des députés qui ont un excellent niveau mais le problème qui se pose mooy député yooyu am excellent niveau malheureusement depuis boobu ak léegi rarement nga ci gis benn euh, envolée solitaire la ngay gis ñu remarqué ci assemblée bi mooy lan mooy saaga yi ak sànni coquette donc hmm. le problème mooy est-ce que le débat là sera aussi productif pour le Sénégalais ouais. c'est la question qu'il faut se poser Pape Moussa un débat productif pour les Sénégalais euh, est-ce que yaa ngi koy xaar euh,